jaaxle rek moo ñu indi heure bi heure bi nga xamanteni ni jigéen ñi waro ñu fekk ñu nekk seen kër yi goor ñu nekk seen liggéey bi yàlla dogal ñu jox ñu sank wax ñu ni minuit Lamine Diallo ak préfet dañuy ñëw toj marché bi. lool nak muy nit jaaxle reuy parce que boba ak léegi bëggoon nañ ko joxon nañu ne la 15 joxaan ñu le premier tay ci guddi ñu jekk ba si yàggu ñu dañuy ñëwaat toj ko te condition yi nga xamanteni mom moom la ñu bëgg a def moom la ñu dul d'accord tay tey ñu ko ëllëg yàlla dogal na fi nak ñu fi nekk chemin de fer 77 ba léegi moo ñu ko joxoon ñu toof di daan suñu doole bu ñu xëyee xëy naa ñu kenn moo moom moom d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg te tamit demuñu ci marché ba la di fa toog di fa jaay loolu moom lañ bëgg mu leer ci askan wi yëpp ñu ngi toog fii ba fanaan fi ba fajar nag di leen xaar heure bu ñëwee dinañ ñu fekk bu fekkee dañuy jaar suñu kaw yàq suñu alal dañ ñuy rey wala ñu tëj ñu rek waaye fii la ñuy toog xaar leen ba koloo ñuy ñëw d' ñu dem ci àll bee ci conditions yi ñu fay yóbboo loolu dong moo waral woote bi ñu ngi ciy interpellé na président Macky Sall mi nga xam ni moo yër réew mi xam na ñun nii ay néew ju doole lañ ay nit lañ yoo xamante nii fayuñu weer amuñu bulletin de salaire amuñu dara fii la ñuy xëy daan suñu doole jël suñu àll yóbbul suñu njaboot tey bu ñu xëyee bëgg ñu koy yàqal ci conditions yi d' accord ñu tey d' accord ñu ci ëllëg lol dong mo waral ñew juk xaju guddigi ñew di protéger suñu alal pour bañ ñu yàqu dong donc waral di amul lene li ñuy def moy dañuy liggéey wacc nan dem nañ suñu kër di ñibbi nañ ñu wax ñu carrément kat nenañ am na fi ñew pour bëgg yaq seeni bagage man nak lima jot ci ay écho moy té lu leer nañ la lañ dem pour recruter ay nit pour ñew dindi bagage fi nek promoteur mom moom fa dem ku ñuy wax mustapha ndjay koku man dama koy citer bu baax parce que buma ma ci yoon ma fekk ko fa moom moo fa dem difa jël ay mine bar pour ñëw dindi bagage fi nekk dama yaakaar nag bu fekkente ni yoon rek la ñuy doxal promoteur moom yoonum nekkagul ci suuf moom moom bu dee yoon la ñuy doxal nag xaw ma la bu ñuy doxal leneen su dee dañoo am leneen lu ñuy doxal kooku moom ak ñoom la mais bu dee dëgg rek mooy dëgg promoteur yoonum warul dugg ci suuf beneen bi des mooy ñaar ñu ko seq muy chemin de fer ñu koy wax l'état du Sénégal ak ñi ñuy wax famille Ana Faye ñoom it kenn xëccoowu ci kenn xeexu ci ñoom ñu ngi toog jàpp seen jàmbur kon defe naa ne mbir mi leneen moo ci lu bokkul ak li yoon santaane loolu moom mooy affaire bi ñun nag li ma waxoon encore une fois rek ñun daal ay responsable lañ dañuy liggéey yor suñu alal investir ko demuñu def leen lu yoon tere lépp lu yoon tere duñ duñ ñu ci seen lu mu santaane buñ xëyee ci la ñuy nekk fa suñu yéen a ànd am ak kenn contentieux ñoom nag ñoom ñoo jël seen décision bopp pour def. mo xam kumu meuna don nak la la wax kumu meuna don rek ancien fi taxaw ak ñepp ci yam ñom liñu décider ñom seen décision bop la té liñu xam seen mom moom lañu waxon ñom batum ñoom njaay ak yoyep ñom lay génné ñun nak ñongi tok di xaar képp ku ñu fi fekk nak fekk ñu fi mais suñu ruu gii nak bu leen leeree ni ci lañ ko teg rek mu seen jam kooku moom yaboo ñu xam ko parce que duñu liggé ba dé ñew ben nit diko ñew diko di ñu massacrer duñ ko sax nungu duñ ko sax kooku moom mu neel amu nakal luñ ko def bu leen nexé nak nañ indi seen machine yépp jaar suñ kaw suuf chemin d'affaires gi ñu jël di sax saxé suba ngoon

donc euh, sécurité publique beaucoup exercer donc koy exercer ci domaine public. Mhm. war a exercer ci domaine privé. Mhm. donc lors sax tey bu ko doon exécuter dafa waroon déggoo ak DBF bi nga xam ne place bi ci loolu. Mhm. wa ila mu nek kon donc ben genre je ne dis pas deal mais mu nek ben genre compromis bo xam dafa melni rek dañu bëgg dégager ñi pour jox ko ki ñu wax ni moko mom te ki ñu wax ni moko mom ñun duñ ko bayyi tant que ñu ba ci yoon ba yoon génn keuytu yu leer na moo parce que suufu chemin de fer la fi yépp et puis comment se fait-il que le, euh, comment, que le TF 143, 145, 141, nga génné ni yow sa mam moko momone té te mu nek ay keuyit yo xamné ne chemin de fer moko momone ci jamono loolu mo indi jiixi jaaxa gi xew tay ñun tamit comme waxon nañ ci ak ñom xamal leen ni li ñun li suñu alal la dinañu ñëw taxaw ak ñom ci loolu ba karok ñu ci gis dëgg